day wax salaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan suñu borom yàlla maa suñu defal jàmm ak ngërëmam barke alquran waaw li ci ëpp mooy wàllu rab xam nga rab mooy jinne jinne la te wàllu jinne yooyu tamit ñooñu ëpp ñun doomu aadama yi fopp ñooñu ëpp sekk ñoog ñun doomu aadama yi dara waaye ñooñu jiitu ci àddina yi waaye dañuy bëgg ak di ñu xemmem waaw beneen bi ci topp nag mooy dangay gis ñoo xamante ni ñoom dañuy am ay tuur ak yooyu ñaare ñii ñu ngi koy toppatoo ñii duñ ko toppatoo ña dul toppatoo mu di leen topp di leen gàllankoor ak di gàllankoor seenu njaboot beneen bi ci topp xale yi jigéen tamit ñu ci bare bare bare ñu ci néew ñoo xam ni ñuy sangoo set te rab dafa bëgg sobe ñi nga xam ne du ñuy jullit dañoo bëgg sobe nga gis ni da gis xale bu jigéen boo xamante ni du fonk maanaam col gu jot te dana toppatoo boppam ba mel nam war a mel nga bu romboon ay xale yu góor yu toog faaw nu xool ko di ko bàyyi xel te dama lay jox lenn ci xelum doomu aadama rek des fois gis xale bu jigéen bu am buy nekk ak ñeenti góor mbaa ñaar xëy dem sëy kenn bàyyi ña ca des kam bàyyi bu gàttee xel da koy jaram ko yóbbu ci sëriñ di ko fexeel ak di defi ay yëf ak yeneen ak yeneen léegi dawalal sa xel xale bi jigéen bi nga xamante ni am na rab yu ko toppoon di ko xemmem mu dem am xale bu góor boo xam mu ngi nekk moom ñuy bëggante rek laa la wax fa la yu tàmbalee di yàqal xale bu góor bi di ko yàqal seen diggante di am jafe-jafe yaakaar yu tas di ca am kee mbiram di kale bu demoon ba tàbbi ci sëyit benn ñii doom dana leen jafe ñii danañ am ay jafe-jafe wala ñuy dugg ci ay tooxi doona yoo xamante ni dañuy jàpp ni sax nit ñee leen fexeel te fekk lépp rab la rab nag li ci njëkk li nit kiy def ngir mucc ci nañuy fexe di laab nañuy fexe di laab waaye bari na jullit ñoo xamante ni buñ jëlee seen jë sëpp ko ci suuf xaaneel bisub àjjuma la wala muy jullik tabaksi wala julli korite bi si wax yooyu waxtu juróom sax daanaka duñ ko julli sàggan ci seen bopp ngir ñu tudd tudd suñu borom yàlla mu génn ci seen làmmi sax lu jafe la te yépp lu baax la day dàq seytaane day dàq rab yi waaw wala muy dimbali boppam di ñaamlu di def ci yaramam ndax alxuraan gi nit ki bu ko am na ci sekk yoo xam nit bu ko dee jëfandikoo am na juróom-ñaari butéel butéel yu ñu fi faral di joxe am na benn butéel bu ñu fi faral di joxe it nit ki bu ko dee sangoo daanaka rab moom da koy daw du ko yàqal du ko dugg léegi nit ki bu sàgganee ba yooyu yëpp taxawu ca day bari gàllankoor ci wàllu àdduna waaw li nit ñiy yàq ak li ñuy def li rab yi yàq ko ëpp fop fop bari na ku jàpp ni dañ koy liggéey wala ay gàllankoor te fekk lépp rab la ndax liggéey capacité bi rab am liggéey amu ko ndax liggéey ni mën naa liggéey liggéey la lam lay liggéey des fois ay rawaxaana yu def yenn yi day liggéey yoo xam ne ñoo ëpp doole lu mbiri rab fop waaye rab moom dafa am jot jàng nga ba ami këy ci bi jàng mu ngi lay gàllankoor yaa ngi bëreek moom ba jàll war ngaa dépose ji fële mu jiitu fa la ndëmal xelum kële ba mu jël ko def ko ca ron ba lépp looy lijjanti da koy la jël lépp looy lijjanti rek dana ko la jël waaw kon léegi rab moom mën naa téye nit ki gàllankoor ko ci wàllu àddunaam bu baax a baax dana dekk ci diggante ñaar ñuy sëyit ba xam te ne ku góor ko moom bu àndeek soxnaam kuy teel a noppi lay doon day mel ne ku sànni ngelaw nga gis yaram ba day sedd guyu bu noppee day tayyal ba nga xam ne day mel day sonn lool waaw ku jigéen kayit noonu nga gis lépp lu nekkoon ci moom nga gis mu sànneeku mel ne lu génnaat waaw te bu ca jàppoon dara it da gis balaa yàgg mu gis baax fa ngay xamee ne rab dafa doy waar bari na ñoo xam ne boo leen ci joxoon sangat tey jii bu fekkoon gis nañ baax ba arrêté buñ ko tàmbalee balaa yàgg ñu gisaat baax ndax ragal gën ragal leeru alquran moo tax dañuy def seeni sirru ngir nit ka sobewu ngir bañ a laal loola waaw waaye fii ñu ngi ciy dimbalanteeg nit ñi ci anam bu wér yu ne nag ma dama koy gis nit gaa yi dafay rab ak yuuxu yeeg seen xeetu yooyu moom dana war waaye daal fii moom ngay teeg fee nuy wax ngay wax ak ay tonton teeg xumbal yooyu yooyu yëpp yëf yi yu doye di la yu manqué alxuraan ak turu yàlla xajut ci ay kaf ku jàpp ba ngay daanoog di bëtt bëtt ak lu mën a xew ci yow boo fi ñëwee danga nga toog fee wala nga toog fa nga toog seen kër ñu lay ñëwal ñëw ñu jox lañ lay jox boo ko sangoor noppi ngaa daanu wala yëfi caaxaan yooyu rab moom dootu la jege naan nangam dugg naag génn naag dana duggaat déedéet déedéet loolu moom kii waaye nag nit ñi moom fi mu toll ni manqué nañ manqué goo xamante nii koo ci gis mu ngi naan na bës bës bës bës waaye imagine seen bës yi ñuy def ci façon yi ñu koy defee te mënuñoo dunda dunda dunda dunda dund ba ndar képp àddina mënuñu ko léegi seen dund gi jeex seeni doom des fi te internet mii dana wéy de xanaa ba kor yàlla lay wal boftu ba waaw imaginer sa jëf yu manqué yi say doom di ko seetaanaat wala say set wala nangam fajal ci dëgg waaw ba waxtu woo xamante ni lum yàgg-yàgg ci ay xat nga siggi waaw jullit dëgg mooy ngor dëgg kuy sàmm diineem dëgg defal la nga war a def mu jeex am na si yoo xamante ay pexe la ay yu ñàkk a fayda ay yu suufe yu doy suuf waaw ay jàpp nit tuur ko jëf yoo xamante ni sëñ bi kéem taan la ndax loolu ñuy wax saf poon ñii di ko wax fuuf boo ko defoon nit ci bakkanam day tisli ak ku mën a doon xaa ku seytaan jàpp ba gañe yu bari boo ci duggoon amuñu xam-xam mais dangay gis dañ koy wut gànnaayoo ko def ko seen biir kër yi parce que lu siiw la ku seytaane jàpp wala boo ko defee mu tisli xëy na loolu du ko faj wala yeneen yooyu bor nit di ko bàkkoo def ko xam-xam di kii yooyu yu manqué la rab day tëj nit ci lépp ni muy tëjee nit maa ngi koy wax sànq boo demee fenn di déposé mu lëndëmal xelu ñooñu ñu def ko ca suufak ak xam yooyu yëpp ci xeet tëj la bokk waaye yem ci loolu rab dina def loolu nit lu bon daa tax ku nekk nii ci bu mu nekk ci la mu war a nekk di jeng di def lu bon lool rab dina tax nit def musiba jëyya ñu rëy te du ko tey boo boo ñëwoon wax ko du comprendre sax lan moo tax mu def lii waa yooyu nit ki di jëfandikoo ba mu jox ko beneen façon kii nga xam te ne ca deretam lay daw rab noonu la yore ay sirroom mën a jax jaxal doomu aadama jëfloo ko lu ko soob waaw léegi nit nag la ci ëpp solo mooy nit moom moo war a am mat gu toll ni waruta manqué barab di ko manipuler waaw léegi nag sa jàmbar wala sa intelligence wala am xel wala gëm sa bopp boo ko dee jëmale ci loo gis mais dof nga hmm? léegi nag alxuraan mi nga xamante ni nit ka ki ñu ko xam dëgg dañuy ñaan ci anam bu wér jox la nga sango woyof tollu mel ni xob leer googu nekk ci sa biir yaram te mënoo ràññeet la leer gi ba gis ko mooy bëri xeetu seytaane yooyu nga xamante ni ne mënoo ràññeeteeg ñoom ba gis leen waaw ndax waxtu yaa ngi dox di mbëkkante ñoom yeneen a jël da ngay fexe aar sa bopp defar sa bopp ba nga xamante ni ñoom duñ la yàpp duñ la jege dañ lay daw waaw loolu moom mooy bu boobaa rek nit ki moom dana am sens ci léppam. waa numéro yi moom genn la rek te mooy samay numéro yi 78 la cent 380 24 07 76 288 17. 93 waaw 78 la 380 24 07 76 288 17 93. waaw moom xam naa ku woote rek moom daañu ci waxtaan ak yow. ndax ñoom samay xarit lañ lool mm-hmm. suñu bis yooyu ay teraanga yu bari lañ cay def. waaw ay nit ñu am ngor lañ. ay boroomi teraanga lañ wax dëgg yàlla te nun dara duñu booleeg doomu aadama lu dul yëg waaw bari naa ñoo fa ay nit lool ñu ma yëg fonk ma lool may ñaan yàlla na suñu borom yàlla gën leen a taxaw te gën leen a dimbali waaw wàllu kayit moom moom yomb na lool ngir ñaan ca yàlla waaw wàllu kayit yomb na lool ngir ñaan ci yàlla ndax na gis nga dëkk boo dem am na boroom dëkk boo dem am na boroom waaw wàllu kay niñ cay ñaane yàlla mooy nit ki gannaaw bu wax bu ñu waxtaanee ba déggoo ñu xam turam xam turi waajuram ba xool yëf ya ba noppi ba ñaanal ko ca jox ko ca lañ ko cay jox wax ko yam koy boole mu jëfandikoo foofa wallaay laasim balaa yàgg suñu borom dimbali ko mu xam kayit waaw te lii luy war àddina la ñoom ñooñu xëy na ñu ci bari danañ xamanteeg yu ci mel noonu ndax kenn ku nekk foofu masa cee jëflanteeg man ci wàllu kayit te amul mu xamee rek maa ngi koy déglu moom wàllu kayit lu bare bare bare bare ci ñoom suñu borom dimbali ñu ci waaw buñ ca jëflantee rekk ci lu gaaw suñu borom dimbali leen ci ndax loo gis dafa am yoon dafa am yoon am loo xamante ni moom moo say jëm direct day nekk lu wér waa waaye nag ñaan la goo xamante ni ci làmbatu rek nga koy teg yaa nga mel nag nit ki yaakaaram dafay tas te këyit foofa mooy ay tànk boo fa nekkee amoo ko waa réew mi yaakaar la ci seeni soxlaak yu bari ngay liggéey di daw di làq toog yeneen ak yeneen gor moomut loolu gor moomut loolu ñaar kese waaw loolu moom képp koo xamante ni dikk nga fi rek soxal naa ci sedd guy ci kàttanu suñu borom ak fu mu mën a toll ci yow dana la ca jox garab goo xamante ni moom incha allahu taala dana set ci sa yaram ndax suñ plante yi lu mu amul ci kaw ñi ko xam te duñ ci am de dañ koy booleek pour yàlla yoo xamante ni tooke dangar tawat jum fekk ci yaramu nit dana ko dindi dana bëri moom ba jëlee ko fa ci kàttan suñ borom yooyu yëpp ñu ngi cay ñaan yàlla di ci faje faje goo xamante ni lépp xam na ni ndimbalal yàlla képp la waaw de moom te traitement la garab gi la waaye dafa am ay ñaan yu muy àndal am te moom lañ koy liggéeyaale waaw ñaan suñu borom yàlla defal nu ndimbalam rek ak ngërëmam te mu saxal nu ci yoonu siraatal mustaqim ci barke yonent bi barkeb Cheikh Ahmadou Bamba xëy na Moustapha suñu yaakaar ji